L'eau multimédia moi Qur'an. L'eau multimédia est spécialisée dans la vente et la prestation de services en proposant une large gamme de matériels informatiques, bureautiques, électroniques, réseaux, divers accessoires et services liés aux TIC, technologies de l'information et de la communication. Avec 11 ans d'expérience, la société L'eau Multimédia est composée d'une vingtaine d'employés et participe au développement du pays et à la création d'emplois. L'eau Multimédia. Nous sommes au 27 avenue Émile Badian, angle Paul Hall Dakar, Sandaga, Lalouourous. Téléphone 823 81 87 ou 77 998 04 04. Service commercial

ñu dellu siwaat ci sunu jotaay nga xamne dañ koy amal fi ci daaray la maison du coran muy daaray wala yu asalafu ma al quran nga xamne dañuy ñëw rek tek majalis ndax ñu soori ñep mëna ànd ak ñun ci bindi di ci nafar ñu nekkon ci sunu jotaay bi wessu waron leen limal tay ñi nga xamne ne ñoo doon bindal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ay rasail yonte bi su bëggono bindul ab lettre ñan lay wo ñu bind leen ñu bindal ko ko ndax yonente bi ummi la won daanut liir waaye daanut mën a bind eh, bal sax léeg su bëggoon a signé dara léeg mu woo ku mel ni Ali ibn Abi Talib ne ko fan la dooree fan la yem loolu yëpp bokk ci kéemtaan yi nga xamante ne pour yàlla gën a dëggal li nga xamante ne moom moo di alquran al karim bokk yi alquran lépp lu ñu ci boole rek lépp lu ñu mën a def ba mu boole ñu ci alquran nan ko def nanu góorgóorlu suwaat ñu nekk woy juru donga wala ñu nekk kuy jàng alquran wala ñu nekk kuy jàngale alquran wala sunu ñaq ñu koy def ci alquran ñeent yi moo lay boole ci ahlul quranil karim awalan xoolal fadail yi yëpp ngëneel ya ca nekk yëpp yàlla defal na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee jëmmi sa sa ñaq wala sa kattan wala sa xam-xam di dem ci kër alquran yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal ba ñuy tabax daara ja ca madina muy jumaa ja parce que jumaa ja moo nekkoon daanaka daara ja ba ñu war a liggéey dafa futteeku ànd ak ñoom di liggéey suñu waree def alal day njëkk yëkkati alalam daal di teg ci taabal bi laa ilaha illallah ndax xam na yool gi nga xam ne moo nekk ci jël sa alal def ko ci li nga xamante ne moom mooy alquranul karim njëkkee ko ci kër gi nga xam ne mooy la maison du Coran bés bu nekk ma wax leen ko li ñu soxla yi ñu soxla bari na lool ñëpp xam nañ ne eh, jéego yi ñu def pour yéen ngeen di mën a jot émission yi fu ngeen mën a nekk ci aduna eh, dafa laaj financement laaj yu baree bari kon numéro yii di daw ku ci woote rek sek ndimbal dina ag ci la maison du coran ba nga xamne julitu yalla yi ñun dañuy soor ba soor ñi nga xamne lélé ñu ci village yu sore sore yi ñom pour ñu ag ci youtube fay jafe lool yan pexé lañ mëna def ba ñom ñu mën di jot ci émission alquranul karim yi ci wàll ci walu diko jang waye ak ci walu diko waxtane kon faw ngay def sa alal ci yu melni niki nonu dara, di jël sa alal di def ci dara kon yentibi sallallahu alaihi wasallam mo ci ñëk ñaarël ba moy jëmmi nga nekk di jàng alquran du wésu mukk yentiyalla yàlla muhammad taalibeb jibril la won di jangé ci jibril waye pour mën ñoo jotali li nga xamante ne moom mooy alquranu karim ñettel ba moy yonte bi sallallahu alayhi wa sallam serigne daara la woon wax naa ko ab serigne moy koy jàngale alcorane yonte bi da doon nek di jàngal sahaba yi moom mo len jàngal alcorane yep min fatiha ila nnaas kon yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam sëriñ daara la won xoolal ñetti xeetu ngëneel yëpp yi am ci alcorane yonente bi am ko yi nek ci alcorane yonente bi am ko mudis ban moy yàlla may la dom ju mokkal alquranul karim est ce que xam ngeen hikma bi yàlla def yàlla buur bi subhanahu wa taala dafa rey doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu des kenn muy Fatima mbokk yi est ce xam ngeen ne Fatima su njëkkoon a dee yonent bi sallallahu alayhi wa yonent yàlla Muhammad du am ngëneelu sa doom mokkal alquran moo tax yàlla daal bàyyi Fatima Fatima di dund ci kanamu yonent yàlla Muhammad ba yonent yàlla Muhammad bi mu génne aduna inqata al waxyu foofee la alquranul karim matee Fatima mën a mokkal alquranul karim bi génne aduna yonent yàlla Muhammad nekk والد حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى ندخ بو يوم القيامة أمول بني تير أمول بني نغنيل بو يالا أمول بني ترانغ بو يالا دف القرآن لودول يونتي يالا محمد دف كو أم كون فاطمة سو نيكونا دي يونتي يالا محمد يونتي يالا محمد دو أم دوم جو موكل القرآن الكريم لا إله إلا الله فهذا هو القرآن كتاب الرحمن لي موي تيري بيغا خامتيني مولاي يوبو الجنة كون يونتي بي su bëggoon a bind lu lettre dafa am ñoo xam ne ñoom lay woo ñooñee dafa am ñu ñu cay lim ka ci jiitu moom mooy abi bakri sadiq ka ca topp mooy Omar ibn al-Khattab ka ca topp moom Handalat ibn Rabi' nga xamne mu gënon gënoon a ci turu al-Katib mooy bindikat ba ka ca top moy zubair ibn Awam ka ca top moy Khalid ibn Saïd ibn al as ka ca top moy Thabit ibn qais ibn Shammas ka ca top moy al-Mughira ibn Shu'ba ka ca top moy muad ibn Jabal ñi ñoo ci gëna a siiw ci téré yi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na len bindulo ci li nga xamante mo moom dem ci rasaa'il yeek wa ma ila ma sha allah taala ñu ñëw ci tomb bu am am solo muy al adawat allati kutiba alayha al wahy juntu kay yi nga xamantene mom la sahaba yi daan bindé wahy muy al alquranul karim su waccion ci yonent bi yonent bi woo leen ne len kay len bind ko yéen kay len koy bindé mbokk yi ñun jamono ji ñuy dund am nañ ay machine ordinateur nga xamne lu nu neex ñu bind ci duñ son am nañ ay kay ak ay bik mu woyof te leer nañ te te neex bindé lol am nañ ay téléphone am nañ ay tablette am nañ lu nekk pour bind ci sahaba yi est ce que amoon nañ lolu kay len ma wax leen yéen kay moo disponible woon ci jamono saxaaba yi pour ñu mën cee bind alquran laa ilaha illallah nit ñoo xam ne ñooñu gën waaye ñu war a bind li gën muy alquran yàlla nattu leen ñun jumtukaay yi ñu am ñoom amuñu ko woon kon ñu lim leen ba ci jiitu moom li ñu tudde ar riqaa mu nekk plurielu muy jamu ruqaa ruqaa moom mooy suñ ko waxee moom mooy lan mooy dañ daan jël ab der der daal di koy wat daa di ciy def ay mbir ba nga xam ne dinañ ca mën a bindee ñu def ko comme fooy maanaam deru xar wala deru deru nag wala deru béy ñu daal di koy jël di ci bind alquranul karim tey jii ñun de der ñu baree bari suñ ko jëlee rek wala ñaan ko ndënd lañ ci bëgg defar te saxaaba yi dañ ko daan jël pour bind ci alquranul karim mën nekk ba léegi ci xumaas ci tisi am ko xam dafay dem jël ab tichi tichi mu war koo sol waaye mu daal di koy jël daal di ciy rawale ab laaya wala rawale ci ab saar kon ba ci jiitu ci ya nga xam ne moom la saxaaba yi daan bindee mooy li ñu tuddee arriqa كم نيغا خامني نون لكو زيد بن ثابت دون واخ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القران من الرقاء تي جامانو يوننتي بي دنج جيل القران ديكو بيند تي الرقاء موي داري اك تيسي با تي توپ تدي الاكتاف الاكتاف موي جمع كتيف كتيف ابني موي يخ بوبي nga xamne da fay nek ci mbag كم نيغا خامتيني نون لكو بوروم خام خام با واخي mu ne mooy li nekk ci ولا مبغ بي ولا جلم مانام بني يخ بوبي دي ديك تي مبغ مخو ياتو لول يخ بوبي لا نوي جيل القران الكريم لا اله ايماجين اي يخ يخ بو تاباندار تي صحابه دي مو جيل دي القران الكريم كوم نيغا خامل نوني لكو زيد بن ثابت دون واخ موني باج ما ديغالي بور ما دجالي القران الكريم موني فتتبعت القران اجمعه من الرقاع والاكتاف ما دون كو رقاع وحنا لين كوسانكا اكتاف موي يخو مباغ يو يخ بوبي خا موي نيك سي دان سي مباغو خار ولا مباغو بي ولا گليم خا خني دا فاي تاب ندا يخ ني تي بيند القران الكريم خولال سارو بلمب سوره البقره سوكو بيغي بيند سي اي يخ نان غي ديف خانا دا غي ديم سي بوسي ني لا يخ ييب نوكو يينو نوكو توخالي مبوكي نيانال لين صحابه يي واي بولين موسى خلات خرب كين سي صحابه يي كين سي نيوم مو ني گن نيون نيب ñettal ba moy liñ ñu al usub moy jamu asib asib suñ ko waxé moy jaridun nakhla moy garabu tàndarma yi maanaam xobu tàndarma yi fi ñu nekk ay gis fi xob bi dafay yaatu lu yaatu lolé nga xamné moy bankas bi té xob yi nga xamné ne dafa yaatu lol mom lañ daan jël ñu bor ko bor ko ba mu bax jël ko di bind al karim jaridun nakhla la lolé nga xamné ni mu mëna baré lu mëna gañ nit nga xamné tay ji ni mën nga ko jappé ne ay sayu mat la waye ak ni mu diisee nan la ko wara mëna téwé xol ni mu tollu nga xam ne mën nga koo tiili boor yi di la gaañ waaye saxaaba yi di ko jël parce que amuñu mooy yooyu moo fa disponible pour ñu man cee bind alquran kon mbokk yi ba ko ñetteel mooy al usub mooy al asib ñeenteel ba ci nga xamante ne saxaaba yi daan nañ ko jëfandikoo pour bind alquran ci jamono joojee li ñu tuddee al lixaaf muy jamu laxfa lixaaf mooy safaihul xijaara allahu akbar mooy xeer dañ daan fekk ay xeer yooyu suñ fekkee xeer bu tàppandaa xeer bu tàppandaar nii nga xam dañ koy dañuy jël xeer bi manam lépp lo xam dal meun nañ ci bind alquran te mu lapp rek dañ koy jël fekk ab xeer ya xolal ab xeer déet yenu xeer ba war ci bind alquran la hawla wala quwwata illa billah xeer ci ñaata xeer nga wara a mën bind alquran parce que leen koy ci àll bi xeer yu wex yoyu di nek ci àll bi nga xam dañuy mag di dem mom lañ dan jël diko yett di ci bind alquranul karim euh juromel bi moy liñ tuddé al aqtab al aqtab moy jamu qatab suñ ko waxé moy ci gellem wala fas yi nga xamante ne moom lañ daan war mooy dëgës boobu ñuy teg ci ginnaaw ci kaw pour nga nit ki mën cee war toog ci dañ ko daan jël da ngay daan gis koo xamante doonte daf koy rocci ba nekk ca gëléemam wala fasam mu jël ko bindee ko alquran parce que su ci xasee ba bindee alquran mëntu ca toog mu jaaral ko mu toog ci fas wala ci gëléem gi mu ko muy booy wala di daanu waaye loolee daf koy mujjee jël jëfandikoo ko ci binde alquranul karim parce que am na laay wàcc bëgg na ko bind geesu na amut lu mu koy bindee mu daal di rocci li nga xamante ne mooy xatam bi nekk ci ci warwaayam mu daal di koy jël diko bindé li nga xamanténi mom modi moo di alquranul karim mbokk yi comme ni nga xamante non la ko zaid ibn thabit waxé muné fa tatabaatu alqurana ajma'uhu min alaktafi aktaafi walusub wa yusudur rijal yi moy yi gëna fess fës yi nga xamanténi sahaba yi dan nañ ko jëfëndiko pour bindé alquranul karim mbokk yi nañu comparer sahaba yi tangor bobé coono yoyé nga xamné da lañu daan am waye xolal jumtukaay yi bind ci ni mu jafee am ko ni mu jafee jël lu tool ni xeer war cee bind alquranul karim coono ga ca nekk ak ñun tey jii nii coono yii la saxaaba yi daj ba mën ñoo bindal alquranul karim ba mu mat sëkk dara manqué wu ci dara rëccu leen ci yal na yàlla feyal ñu leen ñoom saxaaba yi lii moo nekkoon suñu bind tey jii nii kon ku nekk daal di koy xam te daal di koy takk te daal di koy jàpp te julli ci yonent sallallahu alaihi wa sallam ñaanal saxaaba yi bu baax ma kaana min sawabin fa min وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته L'eau multimédia moo leen di may seen émission Assalafou Qur'an. La société Low multimédia a été fondée en 2011 sur la base de convictions et valeurs fortes. Low multimédia et spécialisée dans la vente et la prestation de services en proposant une large gamme de matériels informatiques, bureautiques, électroniques, réseaux, divers accessoires et services liés aux TIC, technologies de l'information et de la communication. Avec 11 ans d'expérience, la société Low Multimédia est composée d'une vingtaine d'employés et participe au développement du pays et à la création d'emplois l'eau multimédia. Nous sommes au 27 avenue Émile Badian, angle Paul Hall Dakar, Sandaga, Lalouourous. Téléphone 823 81 87 ou 77 998 04 04. Service commercial 77 306 44 83 ou 76 637 45 45.